agriculture maanaam ETDR moom bàyyiwul dara moomeelu réew mi la établissement Touba Darou Rahmane yéen doomi réew mi yéen la fi nekk. maa ko formé ba mu dégg daanaka na ma. waaw sama maître maa ngi lay nuyu. kon baax na merci. maître di la ziar di nuyu euh, monsieur le maire Cheikh Issa di ko féliciter dinañ ci ñëwaat di nuyu ñu fi toog ñëpp vraiment individuellement. mën naa tudd ku si nekk kenn ku si nekk li ma séq ak moom également ku si nekk nag laa wax individuellement mais sagam temps bi dafa xat dañ koy gàttal rek jàpp leen ni personnellement jox naa leen loxo yéen ñëpp individuellement sant naa leen gërëm naa leen ñaay benn intervention si ñaay axe laa koy wax benn bi en tant que vice-président national bu jot li yóbbante président Bira Sène si assurance keroog bi mu ñëwee CNG di wut si licence président Bira daf ma woo téléphone ni ma daa am kenn ku jóge mbuur ñëw bëgg a dugg si promotion mun ko est-ce que waxtaan nga ak Maysa ba pare mun ko démb ma ak Maysa yendu di si waxtaan mu ne ko segam tudd nga Maysa lépp loo xam ni jafe-jafe la dinañ la ko teggil ndax Maysa hmm. loolu tey ñu koy seede si kanamu assemblée bi di wax ni Bira nee na pare na pour jàppale la lépp lu mu mën pour que nga mën a développer loolu vraiment euh, dama la koy indil seede man personnellement tamit dañ lay féliciter di la encourager parce que lii nga ñëw dugg da nga ñëw bokk ci suñu liggéey da nga ñëw bokk ci li ñu dénk dañ ñoo dénk pour ñu développer làmb dañ ñoo dénk pour ñu promouvoir làmb donc bu amee benn doomu aadama ñu naan déedéet muy mbuur ñëw pare pour jàppale ma man si tool boobu ma nekk donc man maa lay njëkk a sant dina la gërëm félicité tey même boo ma invité woon lu invité wul woon ma dégg ko simplement mhm. doon naa ñëw toog fii tey ba séance bi jeex ma jug dem beneen bi nag en tant que mbuur moo tax may wax et foofu damay jël kàddu gi delloo ko sama mag Cheikh Fall nii ñu ñu doo jubóolee tey kii sama mag la mhm. séq nañ loo xam ni avant may dugg ci làmb avant may dugg ci football la woon ba tey mhm. moom rek moo amoon fitu ni ma defal nii ma def nii toogal fii ma toog fii waxal ma wax mhm. jeex na tey nag tàccu leen loolu waay ah, euh, na jàpp ni rakkam moo toog nii na jàpp ni rakkam jëma amoon moo fi nekkaat may profité nag di interpeller waa Mbour ni leen dañoo am li gën a jafe mais xamaguñ ko dañ koy xaw a foowe ñun bu ñu demee dakaar dañuy tiitaroo Mbour gis nga il suffit simplement ma taxaw si arène bi kenn woo ma ni ma la Mbour waa Sénégal euh, ñu dekk si stade bi yëpp ñu ngi may xoolu bëtu fierté ñu ngi may xoolu bëtu ah waa ji de mag la parce que simplement Mbour gi ma dëkk donc ñun ñi dëkk Mbour nañ gën a fonk li ñu yor. Mhm. nañ gën a gëm li ñu yor. Mhm. te xam ni lu rëy rëy lañ yor bala ñu koy xam ñu génn dem Dakar. Mhm. dañ ñuy teg si kaw. si kaw lañ ñuy teg gaañ. may sa doguma la. barki démb la am di dem Dakar. man ak Modou Gueye bi ñoo ànd ak Aliou Faye ba la la. ñun bi ñu ñëwee ràññee nañ ñu bàyyi ñu dugg. mais boo ñaari ñu ñu àndal gars yi dañ ñu ko bañal. parale na woon bàyyil ma dem si may sax mhm. bi mu demee danga nga ne ko nañ taxaw nii suñ paree léegi ma dugal leen kon defe naa ne loolu fettale ci doomu mbuur mhm. vraiment loolu dama bëgg ñu gën capitaliser gën ko naw mhm. mbuur benn jafe-jafe la amoon muy fu ñuy tëgg làmb xeex nañ si bataay wax nañ si bataay def nañ si lu nekk mais monsieur le maire ñëw jël ay engagement mu weesu engagement yi commencé poser ay actes mhm. donc dañ koy ñaanal projet yi mu nekk ñu ñaanal ko mu yeggale ko pour l'intérêt de de Mbour mhm. mais surtout pour l'intérêt de la lutte mhm. donc vraiment loolu ñu ngi leen di ñaan ngeen gën a ñaanal monsieur le maire pour que mbébét bi mu am pour que stade bi yegg ñu mën ko attribuer làmb ñu mën ko yeggale promoteur national yi yi nekk Dakar ñoom ñëpp pare nañ pour ñëw tëgg si Mbour ñoom ñëpp pare nañ pour ñëw gunge euh, euh, lutteur wu mbuur yi mm-hmm. ke kooku kan mooy bénéfice bi waa mbuur mm-hmm. waa mbuur dong lay doon parce que ay doomu mbuur la ñuy tëgg industrie mbuur mooy dox euh, sérigraphie mbuur mooy dox jaaykatu caafu mbuur jaaykatu ndox bi et cetera et cetera donc monsieur le maire projet boobu bu weesoo li nga bëgg a defar mbuur jàppal ni c'est pour l'intérêt de mm-hmm. mbuur ñu lay ñaan nga gën see accélérer ñu lay ñaan nga gën see yokk jéego yi Euh, am na initiative yu ñu fiy def par si par la mu am ay jafe-jafe damay joxe benn exemple semaine passée tëgg naa fi benn làmb mu am jafe-jafe au lieu ñu encouragé la dañ lay xaw a jéem a démoraliser te loolu def naa gënul ci ñun waa Mbour tamit donc bu ñuy def yenn initiative yi wutuñu ci xaalis wutuñu ci dara dañ ni dañoo dëkk ci koñ walla dëkk ci dëkk ñu ni eh, Golbert daan na ko wax dëkk si dëkk bi bokk si ñuy defar dëkk bee ko gën ñun làmb lañ ñu xamee au ñu toog di croiser les ñu ne suñu dërëm wala suñu fukki dërëm wala suñu xam-xam nañ ko def si làmb mais loolu dañoo soxla union de tout le monde mm-hmm. na ñëpp ñëw jàpp mm-hmm. ñu encourager ñëpp fo euh, euh, <coughs> féliciter ñëpp pour que yéene yooyu nit ñi am mm-hmm. ñu koy mën di yeggale mais boo defee benn jéego am fukk ñoo xam ni ñu ngi si ginnaaw di sànni xeer loolu defe naa euh, day delloo gaal gi ginnaaw donc may invité daal ñuy gën a boole xol yi mhm, di gën a fóot xol yi mhm. te di moytu dégg naa dama yaakaar dama foog mhm. nañu moytu yooyu euh, posé na nag benn question foofu lay jeexalee nii la moo tax CNG day jékki-jékki génne dara tey defe naa. du yokk naa ci yokk naa ci beneen question. ci commission règlement discipline bi dagg bi bari na parce que bii Tapha Tine laa invité seen TV. nee na ma combat mag Boy ñaa mhm. xaw ma Bombardier 3 mhm. millions lañ ko dagg seetu bi mu tàllal boo xam ne mook téléphone am a toll 1 million mhm. fourneau bu mu boyal 1 million te ñaar ñooñu ñëpp depuis 43 bi Abdourahmane di dajeeg Souley Ndoye yooyu ngi woon ci làmb looloo ma xaw a jaar waaw très bien très bonne question euh, dinañ si tontu léegi avec beaucoup de fierté Euh, beaucoup de euh, benn bi muy CNG dañuy génne ay textes sur la base de lu xew tey dem ni règlement dafa dynamique réglement fixul surtout bu làmb nga xam ni dafa bëy réalité dafa bëy loo xam ni da koy dund tey bu subaa mën na bañ a doon li xew boo seetloo bëri na lu mel ni avertissement judduwul ñëw ci mm-hmm. làmb lu mel ni sorti judduwul ñëw ci làmb lu mel ni carte appui judduwul ñëw ci làmb mm-hmm. yëpp dañuy jékki-jékki en fonction situation ñu évoluer daal di dem lépp nag lenn moo koy lal mooy waxtaan consensus et defe naa loolu la CNG bi taxaw ñu gis benn acte ñu ni act bi bokk na ci li mën a delloo làmb ginnaaw ñu ni soit ñu taxaw seetlu arrêté loolu ou alors ñu jéem a génne benn solution boo xam ni euh, mënu ko regle waaye au moins dina ko calmer su ko réglé alhamdulilah su ko reglewul ñu jéem a génnewaat encore beneen mesure loolu moo waral génne mesure yu bëri mm-hmm. mais du sawar ba génne mesure du question tamit da ngaa xamul li ngay def du question tamit da ngaa mënul li ngay def mm-hmm. mais question la dañoo nekk ci monde bu xaw a particulier muy monde làmb monde la boo xam ni athlète bi sëriñam la gën a fonk que entraîneur am sëriñ bi moo ko naan euh, jaaral bunt bi entraîneur bi ni ko jaaral bunt bi mu dem def li ko sëriñ bi wax sëriñ bi moo ko naan euh, ñëwal entre euh, kaay sangoo bain bi entraîneur bi ni ko kaay entraînement mun ko ñëwuma entraînement damay dem seeti sëriñ bi te loolu du sport looloo dal làmb nag looloo dal CNG jafe-jafe boobu la CNG am pour ñëw si dagg yi raay xam nga na ma yàlla baal nag mais dañoo nekk monde bu xaw a compliqué avant ngay dem di xeex nee nañ la lii ak lii ak lii ak lii ak lii dañ koy tere lii boo ko defee lii moo la siy fekk lii boo ko defee lii moo la siy fekk lii boo ko defee lii moo la siy fekk ñu xam ko bu baax a baax nee nañ tere nañ seetu même bu seetu bi tolloo nii lu ñu tere loo koy indee ñun la boo ko indee 10 pour cent si li nga fi bàyyi la ñuy génne donc avant ngay dem xam nga ni seetu bii may yóbbu bu bu ma ko yóbboo bu ma fa sama xaalis nekkee 10 million perte naa un million si yóbbu bi ma ko yóbbu nga xam ko avant ngay dem nga dem def ko lu si nit mën beneen ñun la booy ñëw indil dix personnes boo boo ëppalee benn personne bu billet bi day jar quinze mille quarant cinq mille lañ lay jaayee billet bi mhm. nga ni jaral na ma ko mhm. mais lu si nit mën mais seetu bi benn ban gravité la mën a am ci biir làmb xam nga c'est une arme seetu mhm. mbër bi ko yor bu ko tojee mën na see rendi nit mën na see xotti nit te duñ toog nag ba ay meurtre am si làmb ji ñu naan ana waa CNG c'est une arme. très rapidement balaa euh, parce que président maire day jël. Euh, euh, bu dul seetu aussi fourne bi. waaw parce que fourne aussi yàgg nañ ko gis ci làmb lan mooy danger bi. très bien fourne également lu tax muy danger xal la te yaa ngi dajale mbooloo mbooloo boo xam ni c'est des milliers bu fa fa déclenché panique am lan moo fay judd lan moo fay judd donc tout ça. c'est des actes yoo xam ni gaa ñi tëjuñu. pour pour toog rek bëgg a bëgg a tere. non bëgguñu tere lu amuñu envie tere. dañu jàng étudier. xal la bu nekk fii ab benn dof mën na jóge fële ngeen baal ma ci terme bi jël xal bi xëpp ko foo këpp ko fourne bi këpp ko foo xam ni essence yi fa. wala leneen loo xam ni c'est combustible mu daal di jël fa. fa ñëw sama sama no non non non non gars yi nekkuñu conférence non nekkuñu conférence de presse gars nekk non non non Bour Gueweul jëm Bour Gueweul non non bi parce que Bour Gueweul c'est le président euh, des euh, moo jiite site internet yi nekk ci làmb ji mooy président dañoo am problème temps. waaw dañoo am ma dagg la tontu si buub géwél. waaw waaw daggal buub man man maa ngi ñëw donte question yi ma ko posé. waaw li mu tontu man convaincre ma à 100 pour cent. c'est possible mais yooyu après non dinaa la invité. avec plaisir waaw waaw léegi nañu dimanche passé la woon benn reporter bu dekk Dakar ñëw na ñu interdire ko enceinte. Mhm. loolu nag texte CNG maye na ko tamit texte CNG moo ni trois à l'image CNG moo ko moom daal di koy dénk euh, le promoteur moom moom lañ tuddee rétrocédé mu rétrocédé ko le promoteur promoteur bi également bu ñëwee day indi l'équipe de presse bu mu bu muy accompagner CNG am na liberté mm. si équipe boobu xool ñi nga xam ne dañuy participer si développement làmb accepter leen seen accréditation. ñi nga xam ni bokkuñu ci ñuy développer làmb mu refuser leen seen accréditation et c'est ce qui s'est passé dimanche passé. non je suis pas non président d'accord ma loolu non non d'accord ma de maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw non nañu arrêté loolu parce que non nañu arrêté loolu non d' accord non parce que xam nga bu waxee li caméra yi tàkk ñu accepté loolu te loolu ñun ànduñu mais ñun kenn ku ne am nga émission ñi ngi waaw kon nañu kon nañu kon nañu arrêté loolu kon nañu arrêté loolu mais man je ne suis pas d' accord euh, euh, question yi nga invité ko ci sa émission waaw nañu arrêté mais man je ne suis pas d' accord parce que caméra yaa ngi tàkk te ànduma ci te bëgguma sama frère li ma àndul ak moom vraiment ma accepté ko fii devant tout le monde non mënatul continuer on arrête na tàggatoo et puis buur euh, de toute façon buur la concerné hmm. man taxaw naa moom taxaw na waxtaan nañ dimanche passé donc kooku du débat non juboowuñ mais waxtaan nañ ma ak moom donc c'est le plus important euh, ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di féliciter tout le monde di wax ni ñu ngi mbuur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 de dernière génération am na ci ETDR location de voiture maanaam ETDR moom bàyyiwul dara moomeelu réew mi la établissement Touba Darou Rahman yéen doomi réew yéen la fi nekk